لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله
bu la àdduna diggée ni da nga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax kenn du fi sax.
الله أكبر الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi ñi ngi doore suñu kàddu ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala ñi ngi làqu ci moom di muslu ci moom mu muccal ñu ci seytaan mi nga xam ni mooy yàqkatu jëf yi ñu ngi koy sant di ko delloo njukkal ci xéewal yim ñu defal te buñ ko doon lim duñ ko mën a jeexal ndax wa in tauddu nicmatallahi la tuhsuha ñu ngi delloo njukkal sunu borom di ko sant ci xéewal yi nga xam ni defal nañu ko yii fàtte nañ ko bu yàgg yii ñi ngi ci te yëguñu ko yii sax mi ngi ci yoon bi di ñëw te egseegul ndax xam ngeen ni mbooleem xeetu sant yépp dafay dellu ci moom subhanahu wa ta'ala kon alhamdulillahi ala kulli xaal alhamdulillahi xatta tarda julli sëlmal ñaanal suñu sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu sang boobu nga xam ni li ñu doon moo ñu ko def ki tax ñu nite ki tax ñu xam nu ñuy tooge ci pénc mii di àdduna ki ñu jokkaleeg sunu boroom subhanahu wa ta'ala ba ñu xam mooy kan ñu teg ko place bi ñu ko war a teg jàngal ñu sunu bopp ba ñu xam naka la ñuy jëflanteeg sunu bopp ndax nit day xam boppam jàngal ñu sunu moroom ba ñu xam naka la ñuy jëflanteeg moom ba loraange du am suñu sang bi moo ñu ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam ñaanal gaa ñu baax ña nga xam ni ñoom la àndaloon di ay góor ak ay jigéen ay mag ak ay ndaw lu ne ñu defoon ko ci diine ñu defoon ci seen alal defoon ci seen temps defoon ci seen doole waaye defoon ci li gën a cher ci ñoom muy joxe seen bakkan ay góor lañu woon ak ay jigéen ay mag ak i ndaw ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu sëmbaxtal yiw yi ci seen kaw dinaa loolu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu islaam muy jaami yàlla ak barkeem ak ay xéewalam ak yërmandem yàlla na ko yàlla wàccee ci àdduna bi yépp wàccee ko ci dëkk yu ñu wër waaye defal ñu ko fii Sénégal ñi ngi leen di ndokkeel ci weer wi nga xam ni ci lañu nekk muy weer wi nga xam ni moo gën ay moroomi weeram ay bisam gën yeneeni bés yu dul moom ay waxtoom gën yeneen waxtu yu dul moom ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala lépp lu ci yiw yàlla nañu ko defal ni mu ubbee buntu aljana yi yàlla na ubbi suñu buntu yiw yépp ni mu tëjee buntu safara yi yàlla na tëj bépp bunt boo xam ni loraanga lay doon ñëw ci ñun di santaat borom bi subhanahu wa ta'ala bim ñu mayee ñu fekkee waaw baax na delloowaat ko njukkal bu baax gërëm ki nga xam ni bés bii yàlla dafa dogal moom moo koy taxawal muy asayida maam faatu maam faatu mbeng ñi ngi lay yéegal sa yéeguwaay di la ziyaara di la ñaanal yàlla yàlla defal la tawféex defal la xéewal guddal say fan ba mu law ci ñépp noonu la ñuy nuyee toute la famille Mbeng sama turandoo Zeynab nuyu sunu yaay ju baax ji meer Njóoba yàlla na fi yàgg te wér famille bi yépp ñi sant Jóob ñu sant Mbeng ñi ngi leen di nuyu di leen yéegal seen yéeguwaay ndax li Maam Faatu nekk kat yéen a ko ci jàppale bu ngeen ko xataloon rek mu doy waar waaye bu ñëwee yéen ñëpp ubbil ngeen ñu seeni kanam ubbil ñu seeni kër macha allah toute la famille ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla defal leen tawféex ñaanal soppe yi defe naa boo wootee te amoo ku la wuyu day yéeme ñu jógee fu sori ñi nga xam ne seen alal li may faral di wax képp ku taxaw ne sopp naa Zeynab rek lekk naa alalam man maa ngi leen di delloo njukkal di leen ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala tànk ñëw yi ak tànku dem yi yàlla na bokk ci tànk yi nga xam ni malaayika yi dañ koy foto dañ koy filmer ëllëg yowmal xiyaam ñu tegal leen ko aljana ñun ñëpp ñu toog di seetaan ñaanal sama parents d'élèves yi borom yi muuraay yu vert yee macha allah ñi ma jox seeni doom wóolu ma maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen yéegal seen yéeguwaay yéen ñëpp maa ngi leen di ziar su ma ko tegee ci loxo Ousmane Ciss ak Ndey Assu yéen ñëpp yéen a ngi ci biir nuyu oustaz Makhtar Sarr sama càmmiñ macha allah baax lool am xam-xam mun koo joxe te ñime li muy wax tey li raar mooy wax dëgg te yàlla rek tax ndax ñi si xalaate tàngalkat dañoo taxaw yor seeni tàngal boo ñàkkee fayda ñu sexal la ko ne la nag sex ko tani muut waaye bokkul ci ustaas yooyu moom ustaas maxtaar gàcce ngaa laama nii rek ngay mën a mel nag ndax saar nga sant macha allah ñu ngi lay ziar nuyu sama rakk ji El Hadj Diop waa ansaaru diin yépp ñu ngi leen di nuyu ak sama papa yi ma fi fekk bàyyi mbuub ziar ko bu baax yéegal ko yéeguwaayam nuyu sama waajur bu jigéen bii toog sama wet ñaanal ko yàlla mu defal ko jàmm defal ko tawféex guddal fanam yaa xam ne yàlla na nga fi yàgg te wér boo ñu saytuwul woon xool suñu éducation comme niñ koy waxee ñuy ooyoo ko palaalin kon tey lii duñ ko mën kon saana ko yàlla na yàlla fay la. sama mag ji nekk sama côté ndeyjoor ziar ko mu bokk ci ñi nga xam ne tey maam Fatou lu rafet rek lay def daf leen a darajaale bés bi moom ak waa opération Mour say cër li ma koy wax nee naa ko yow moom waa opération Mour say cër de xam naa ni dinañ la décorer. ñun say mbokk mënatuñ laa am fenn nday faatu saa yoo ko woowee mi ngi jokkoo ndax nag opération Mour say cër dañoo am ay groupe whatsapp 1 ba 10 te chaque jour mi ngi ci di jàngale. yal na yàlla fay la li ngay jàngal askan bi yal na la ko yàlla fay waaye ñoom Ismaayil ak ñoom Maajoor li ma wax ni ñun biñ nekkee ci daawa bi yàgg na yàgg nañoo waaraate. loolu théorie la yéen dëgg na ñëw rek indi pratique bi kon yal na yàlla dëgëral leen. te ñi ngi may xamal ne képp ku bëgg a muuru ci jotaay bi indaale nañu indaale nañu ay kol ku bëgg a muuru dinañ la muur incha allah mère Thiam yëkkati na loxoom nee na bëgg naa muuru nuyu waa rajo Dunia teg ko ci loxo Fallou seen lay jaañ seen naa ko fi sànq nuyu ki nga xam ne mooy mère Thiam mère Thiam nekk sunu mag nekk sunu yaay oyof lool macha allah ñu bokk di def émission ñu ngi lay nuyu nuyu sunu yaay Mariatu Dieng teg loxo waa jamaatu Ibadu Rahman seen nuyoo teg ko ci loxoom ak sunu yaay Khady Cissé sama mag mama Mariba sama mag sama soppe nuyu ko bu baax a baax moom itam yéegal ko yéegu waayam ziar ko bëri na ay yitte tey mais yàlla ak sama jëmm moo tax mu ñëw bapp la yàlla na yàlla fay la ñu ngi lay ziar ak sama sëyda sama mag Adama Kan su ma lim defe naa ne kon liñ bëgg a waxtaane day xaw a yéeme oustaz Makhtar bi muy commencé wax na ne li ñuy waxtaane mooy a tawbatu war rujuu ilallah sañu maa fàtte Souleymane mi nga xam ne mooy yor sama sécurité fu may dem Souleymane yal na la yàlla defal tawféex yal na yàlla fay la muy tuub ak dellu ci yàlla mu wax li ci borom xam-xam yi wax mu leer nañu waroon nañ ko sax mën a doyloo nijaay Matar Suwaare mu ne ma Zeynab buñ demee ca conférence ba dama lay bàyyee nga wax aaya yi nga xam ni ñoo ñëw ci tuub ak axaadis yi man ma wax li ci jumhurul ulama wax oustaz Muaz mu leeral ba mu leer nañ man sama waxtaan ma koy joyal fi ma mëne fi ma mëne mooy man yàlla nee na yonent bi nee na loolu laa gën a mën mënuma leneen lu dul moom yàlla nee na yonent bi nee na loolu laa gën a mën mënuma leneen lu dul loolu moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala daa bind doomu aadama wàccee ko ci kaw suuf mu nekk xalifaam mu wàccee iblis mu nekk nattu ñeel ko iblis nekk suñu noon di ñu xërtal ci def ay bàkkaar borom bi ci maanduteem ak ci baaxam fa mu commencé mooy li tax mu joxoñ ñu nañu joxoñ ñun ñun nañu nañu joxoñ iblis jàppee ko noon inna shaytaana aduwun lakum fattaxizuhu aduwa ne iblis seen noon la na ngeen ko jàppee noon mooy iblis moo njëkk a def bàkkaar iblis moo njëkk a def bàkkaar ci ne yàlla daf ko sant mu bañ yàlla daf ni usjudu li aadam fa sajadu illa iblisa aba wastakbara wa kaana min alkaafiriin borom bi subhanahu wa taala nattoo ñu iblis mu ñuy defloo ay bàkkaar ndax moom mooy suñu noonu ñun nag dañoo am problème suñu problème mooy yàlla daf ñu joxoñ kenn nañu kii mooy seen noon jàppee leen ko noon tey ñu renversé ko jël nit teg ko place iblis def ko noon fàtte iblis muy liggéey liggéeyam di ñu jax-jaxal di ñu defloo ay bàkkaar te li ci gën a métti mooy lekk-lekk dañuy fàttee tuub kon thème bii ñëw na ci waxtoom thème d'actualité mooy thème bii ñuy waxtaan chaque jour dañ ko war di waxtaanee borom bi subhanahu wa ta'ala santuñu ñuy julli waxtu julli juróom ci biir julli gi mu am faatiha te faatiha boo ko tariwul ci julli sa julli baaxul faatiha li muy rëy rëy daf ci am benn ñaan bu ci yàlla dëxëñ boo xam ni day jàngal doomu aadama ni muy delloo ci boroomam subhanahu wa ta'ala ndax mun ngaa jàng fatiha ba mu jeex te waxoo ni ihdina siraat al mustaqim laa yumkin mun ta nekk ihdina siraat al mustaqim mu fassiru ni dañ koo firee nu bari nu ne ndax maanaa bi nekk ci biir moom moo tax mooy yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla nag ñu teg ci yoon bu jub bi yoon bi nga xam ni ku ci jaar egsi ci yow kon dalay jàngal ni am na beneen yoon kon yoon bu jub boobu boo ci jaaree mooy yaa ngi moytu bàkkaar yaa ngi jëm ci tuub ndax kii tuub mooy ki xam ni amul mënul sañul du dogal mënul def mënul dindi kii def sañ di defa ko dindi yore sañ-sañ bi mooy borom bi subhanahu wa ta'ala mu koy delloo boppam xam na ni loolu mu koy ñaan amu ko moo tax mu naan ko ci julli gu ne rakaa bu ne ihdina siraatal mustaqim yàlla yàlla nag ñu teg ci yoon bi nga xam ni ku ci jaar jub ku ci jaar baax ku ci jaar am taqwa ku ci jaar sa société mun laa jëriñoo say wayjur mun laa jëriñoo nga nekk nit koo xam ni dangay saint dangay set ba korog ngay dajeek borom bi subhanahu wa ta'ala moo tax tuub moomu borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ay yoon ci alquran jàngal ñu naka la ñuy tuubee wax ñu ni dañoo war a tuub wax ñu sabab yi tax ñu war a tuub oustaz Maxtaar wax na ko yàlla daf ñu jàngal tuub jàngal ñu sabab bi tax ñu war a tuub buñ demee ci sóoratu nisa aaya 17 borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi wax naan innama tawbatu ala allahi lillazina yacmaluuna suua bi jahaala thumma yatuubuuna min qarib borom bi nee na dëgg-dëggi tuub kii tuub mooy nit ki muy tuub jëm ci moom mooy borom bi subhanahu wa ta'ala nee na kiy tuub mooy ki nga xam ni dafa def erreur dafa def bàkkaar dafa def njaaxum mais bi mu koy def xamul bi jahaala mu fassiru ni nee nañ mooy réere na boppam moom nit ak mission bi ko war ci kaw suuf ba tax mu tàbbi ci loo xam ne waru cee tàbbi réere na tam ki ko bind ni mu toll muy borom bi subhanahu wa ta'ala huwa alqaahiru fawqa ibaadi ni mu ko noté nga xam ni fa muy defee bàkkaar bi mun na ko faa rey mu réer juum ba tàbbi ci li nga xam ne moom mooy bàkkaar te fekk xamu ko mu ne waaye nag mu am chance gaawantu delluwaat ci boroomam subhanahu wa taala ci lu gaaw kon daf lay jàngal ne boo defee bàkkaar ba yëg ni def nga bàkkaar gaawantu nga tuub tuub kenn du ko yeexe tuub boo ko yeexee rek musiba dugg na la maa ngi nuyu Seyda Adama Seck di nuyu waa daara ja daara ji nga xam ne daf ko ubbi tuddee ma ko am naa turandoo bu nekk macha allah sama benn turandoo teew na fii ci samay turandoo njaga jóob laa ngi nii toog tuddee na ma doom ak ñeneen am naa 21 turandoo macha allah keneen a ngi ne ma jàkkaar lool tuddee na ma doom ñu bokk ndey ak baay mais tur bi ma aadama sekk tuddee rëy na de alquran ubbi daara tuddee la ko tuddee na la lu rëy Adama Seck ñu ngi lay ziar di nuyu waa daara ji yàlla na yàlla barkeel ku fa jàng yàlla na nga mokkal borom bi subhanahu wa taala jàngalaat doomu aadama ca suratu shura wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaafu an sayiat mu mel ni daf lay wax yàlla dafay wax ak nit moo tax may faral di wax ni diine kenn du ko lekk mais dañ koy dégg diine kenn du ko lekk mais dañ koy dégg ne doomu aadama man maa la bind xam naa la xam naa ni rëy nga pexe bari nga ay bàkkaar sa maam bàkkaar moo ko jëlee fa mu nekkoon muy aljanna moo tax mu ñëw fii ñun suñu cosaan mooy aljanna moo tax nit bëgg lu neex heure bii àjjana la ñu waroon a fekk duñ yëg tàngoor amul feebar amul naqar amul kenn du la jëw kenn du yàq sa der kenn du la wax lu ñaaw heure bi aljana la ñu waroon fekk mais bàkkaar ndeysaan suñu maam aadam def bàkkaar moo tax yàlla wàccee ko fii ñun ñu juddoo fii heure bi foofu la ñu waroon fekk ñuy ooyoo di aay di palaalin yàlla nag ne man borom bi subhanahu wa taala man may nangu tuub yi ci samay jaam yi nga xam ne def nañu bàkkaar duma ca yam waaye di leen jéggal yi nga xam ni sax defoon nañ ko fàtte ko muy saa yoo tuubee benn bàkkaar bi nga def na la leer ni mun naa yóbbaale yeneen bàkkaar yoo xam ni defoon nga ko moo tax tuub dafa am importance aaya boobu mi ngi nekk ca sóoratu shura waxaat ak ñun ca sóoratu tawba alam yaalamu an allaha huwa yaqbalu tawbata an ibaadi waa xanaa xamu leen ni yàlla mooy nangu tuub yi yàlla mooy jéggal ñiy def bàkkaar nit lu mu foor foor lu mu bëri bëri xam-xam lu mu bëri bëri mbooloo mënul assuré kenn def bàkkaar mu ñëw ne ko maa la koy jéggal xanaa rëy fit Sénégal nag lu ne am na fi Sénégal moom actuellement yaa tout lu ne dëgër fit bu nekk am na fi andeem dañuy tegal yàlla chaise tegal nit seize teg beneen seize ñeneen ñi toog yàlla di xool fu mu war a toog bu nit demee ba sañ a wax loolu nga xam ni dëgër fit du ñàkk di léeg-léeg am ku toog di woote ne man maay jéggalekatu bàkkaar yi yàlla buñ ko fekkee moo tax boroom xam-xam yépp dañoo uute ci ne dañoo daje kon daje ñoom ñépp dañoo wax ni tuub farata la tuub farata la di dellu ci borom bi subhanahu wa ta'ala di ko jéggalu farata la farata la fi'lu amrin la yàlla moo ñu digal pour ñuy tuub wa tuubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun yàlla nee na dee leen tuub di jëm ci man yéen jullit ñi yéen ñi wax ne ay jullit ngeen xaalatil aaraabu aman na qul lam tuminu walakin xuulu aslam naa nekk naa jullit rek yomb na mais jullit buy pratiquer la yàlla soxla moo tax yàlla moo bind nit ñépp mais saa yuy wax mi ngi wax ak daairatul iman ñi nga xam ne dañ koo gëm wóolu ko jël seen bopp jox ko yàlla suy wax ñooñu lay waxal nee na tuub leen yéen jullit ñi da ngeen a bëri bàkkaar bàkkaar dafa sew am na léeg-léeg nga yëg ko léeg-léeg doo ko yëg léeg-léeg nga tey ko léeg-léeg doo ko tey moo tax tuub gi day jaadu tuub leen dellu ci borom bi subhanahu wa taala yéen jullit ñi bu ngeen buggee am ëllëg aljanna laallakum tuflixuun mooy am aljanna rek ëllëg ca suratu nuur yàlla wax ba wax ak ñi nga xam ne oustaz Maxtaar doon na ko junju ñi nga xam ne dañoo dem ba dañoo désespéré léeg-léeg nit dina nuuru ci ay bàkkaar ku nekk xam na boppam léeg-léeg nit dina def ay konori di def ay bàkkaar di def ay mbuxum di def ay ñaawteef mais domiram conscience am daf koy daf koy yedd léeg-léeg mais léeg-léeg a nafsul amaare bi suu muy bakkan bi nga xam ne day digal nit lu bon danaan ko ah jaratu ko de jaratul ngay tuub yow li nga def yépp Oustaz Tine léeg-léeg nit def ay bàkkaar ba ni man yàlla dootuma baal day am léeg-léeg nit woo la ne la man damaa def ay bàkkaar est-ce que yàlla dina ma baal xam nga ki tëlee ngay sàkku dara mu naan la man awma ko mënuma ko mais ki am loo ko ñaan mu may la ko moo tax nee na moom rus na sax ni tàllal loxoom ne ko may ma mu lay delloo zéro ñi dem ba désespéré li nga xam ne dalul waa ji oustaz Maxtaar wax léegi xisa boobu waa ji rayoon juróom-ñeent fukki nit yi ak juróom-ñeent dem ba nga xam ni mënatul am conscience tranquille lu dul ne dafa dellu ci borom bi subhanahu wa taala mu dellu ci boromam subhanahu wa taala mu jéggal ko yàlla nee na qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru yaghfiru zunuba jamia yàlla nee na ee yéen ñi nga xam ni da ngeen a nuur ci ay bàkkaar yéen a gën a xam seen bopp jëw rek ngay def loo wax du dëgg liggéey nit ñi rek ngay def soxor nga iñaan buggoo kenn ku la raw ku la raw nga dabe ko làmmiñ lu ñaaw rek ngay xool ci nit say julli du mat say rukkoo doo teewlu soo xëyee ci nit ñi ngay xëy boo gontoo ci nit ñi ngay gont fàtte sa bos nekk ci bosu nit ñi nee na ee boo demee ba mu yàgg nag arrête arrête dellul ginnaaw yow mi xeeb nit ñi yow mi yaakaar ni yow rek la yow mi yaakaar ni luñ dugal loxo boo ca dugalul sa loxo du sotti yow mi yaakaar ni mbooloo ma boo ca demul sax du am finesse yow mi jàpp ni dangaa war a yëkkati sa bopp suufeel nit ñi yow mi dem ba nga xam ni jàpp nga ni daal nuur nga ci ay bàkkaar bàkkaar gaw na la ko te bu ne yow mi nekk ci njaaloo yow mi nekk ci naan sàngara yow mi nga xam ni yaa ngi triyaane nit ñi ñaata nit nga sàcc ñaata nit nga jël seen alal mais dem nga ba sa conscience yedd la nee na bul désespéré yàlla mooy jéggale bàkkaar yépp yàlla bàkkaar yépp daf koy jéggale bàkkaaru bokkaale bi ñuy naan du ko jéggale mooy bu ko nit faatuwaalee mais sooy bokkaale di bokkaale ñu jàngal la ni fii kenn rek moo fi nekk est-ce que xam ngeen ni àdduna kenn rek moo fi nekk fii yàlla rek moo fi nekk jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla kese moo fi nekk yàlla rek moo fi nekk li fi nekk yépp moo koy mujj doonu di walillahi miraasu samaawaati wal ard yàlla nee na yow mi nuur ci ay bàkkaar ba jàpp ni yàlla du la jéggal nee na tëddal ba guddi nga jàpp julli ñaari rakaa ne yàlla maa ngi nii sa jaam bu taq bu tilim baa ngi nii nit boo demee ba reconnaître sa bàkkaar di jublu ci borom bi subhanahu wa taala rek dañuy wax ni yàlla jéggal na la ndax nag a nadamu taw ba réccu li nga defoon bañ cee delluwaat yàlla daf la koy jéggal moo tax est-ce que xam ngeen nii tuub dafay tax yàlla duñu defal ay balaa ak ay musiba dellu ci yàlla moom rek moo mën a tax balaa yeeg musiba yi jóge ci sunum réew ñu am nag ñaari amaana ñun borom bi subhanahu wa taala utal ñu garanti suñu garanti mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abu jahlin dafa toog yonent bi waaraate wax wax wax mu jóg na ko li ngay wax bu fekkee dëgg la na yàlla taw ay xeer comme ni ñu koy waxee na taw ay xal xam nga léeg-léeg nga wax ak nit mu ne la boo dee yàlla tawal ay xal wala tawal bulet man wax yooyu ak ma koo ragal léeg-léeg wax nit wax wax ju rëy mu mën ko génne ci millata du ci bàyyi xel boo dee yàlla tawal xeer kenn du ko wax abu jahlin sababu nuzulu aaya bii may bëgg a wax bu yonent bi waaraatee wax li muy wax loolu la ko wax boo dee yàlla tawal ay xeer waaye ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu garanti la li may faral di wax huwa alxabibu allazi turja shafaatuhu li kulli hawlin min al ahwali muqtaxami ëllëg yowmal qiyaama moom la ñuy yaakaar mu taxaw ci kanamu borom bi subhanahu wa taala mboolem ku yàlla mës a yónni taxaw ci ginnaawam mboolem ku mës a am daraja ak ndombay tànk taxaw ci ginnaawam mu tinul ñu sunu borom subhanahu wa taala ñu ànd dugg aljanna ndax nag moom mooy ki nga xam ne moo gën képp kuy dox képp kuy noy yonent bi moo la gën sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla ne wa ma kaana allahu li yuazibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfiruun mu ne abu jahlin waxal rek waxal danga am gàtt gàttu gis moo tax nga waxee nii nga waxe ndax xam ngeen ni ci mbugalu yàlla la faatoo mooy ne moom ci xaswatu badr lañ ko reye kenn deful kenn dara lu waaye def boppam la ko def bi gën a neex ci askan wi mooy wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfiruun yàlla nee na duma mbugal aw xeet li fekk ñi ngi wax astaghfirullah ci wax ak ay jëf istighfar du wax rekk astaghfirullah kese yor sa kurus ustaas maxtaar wax na ko astaghfirullah astaghfirullah kese am na lenn lu muy kafaara ci ay bàkkaar mais am na bàkkaar yoo xam ni istigfaar boobu du ko dindi ay fee moo koy dindi muy def nga bàkkaar bu rëy sa digganteeg sa boroom nga yëkkati lu rëy saraxe ko ci yoonu yàlla te yàlla tax yàlla mëbb li nga xam ni moom mooy meram am na bàkkaar boo xam ne xam nga lu koy dindi nga am gan gunge ko paa yooyu ngay def mooy dindi bàkkaar boobu am na bàkkaar yoo xam ne xam nga lu koy dindi nga togg ñam jox ko ay nit ñu lekk ko te yàlla tax am na bàkkaar boo xam ni li nga xam ni moom moo koy dindi mooy foo tollu nga nekk ci lu baax bi may commencé pour man du ma mën a yeggale ndax rendre hommage bi ñu doon rendre hommage maam Alpha lay pay maa ngi lay nuyu suñu naataango baax lool ñuy defandoo émission yaru lool depuis ci suba ba léegi mi ngi fi ndeysaan ñu ngi lay nuyu di nuyu waa DTV. yàlla na yàlla teg loxoom bu sell bi ci rajo ba ak ci télé yi nga xam ne yépp ñoo fa nekk lay fay ziar nañ la aas ñu ngi lay nuyu bu baax a baax maam Alpha Camara turu maam bi man maa ko ko tuddee woon ba mu law ñëpp di ko wax maam mu nekkoon kenn ci man fu ma mës a am conférence moo ma fay jiitu ñu àndoon bokk di liggéey mësuma gis maam Alpha fu mu mere yàlla na ko yàlla fay rendre hommage bi ko waa jottali wax léegi du mës a deñ suñu xol duñ ko mës a fàtte ndax daf ñoo lebal lu baax jëflante ko ak ñun ba yàlla jële ko fi xam suñu maam jooju yàlla na xippee aljanna ak a baaxoon yàlla dafay bëgg bu nit làqoo ñu koy waxal ay baax baaxam maam Alpha Camara baax mësul mënul weesu yaa baax ku baaxoon ku lewetoon dañ daan def émission léeg-léeg dañ koy kaañoo te du mer te moo ñëwagoon fuuf yàlla na ko yàlla fay lépp lu mu jot a def ci àdduna lu rafet yàlla na ko yàlla fay ay rëcc rëccam yàlla na ko ko yàlla jéggal kon aaya bi ma doon wax léegi mi ngi nekk ci suratu anfaal est-ce que xam nga ni tuub dellu ci yàlla day tax nga am dund gu dal ta neex yàlla moo ñu ko jàngal ci sóoratu Huud mu ne wa an istaghfiru rabbakum suma tuubu ilayhi yumatti'kum mataan xasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla zi fadlin fadla yàlla nee na bu ngeen di tuub di dellu ci man bu ngeen di wax astaghfirullah ci wax di ko feeñal ci ay jëf xam ni man maa mën a jéggale bàkkaar yi ngeen di ñëw ci man di toog ci man di toog ci sama bunt di ma jéggalu dinaa leen dundal dund gu teey dund gu neex ba heure bu ma neexee ma jële leen fi yóbbu leen fa gën a neex muy àdduna neexul aljana moo gën a neex ba pare nag te ku nekk li mu war a am ci lu baax dinaa ko ko jox tuub dellu ci yàlla mooy tax yàlla jéggal la say bàkkaar donte dangaa def bàkkaar lu tolloog asamaan ak suuf tuub dellu ci yàlla ne yàlla jéggal ma astaghfirullah di def lu baax te yàlla rekk tax day tax borom bi jéggal la say bàkkaar donte say bàkkaar fees na li nga xam ne moom mooy asamaan ak suuf yàlla nee na ca soratu nisaa wa man ya'mal suu'an aw yazlim nafsa summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima nee na képp koo xam ne dangaa def ñaawteef wala nga tooñ sa bopp gis nga nit boo defee bàkkaar tooñoo kenn sa bopp rek nga tooñ toog bi ngay toog di jëw nit ñi di yàq seen der di wax muy neex ci yow noonu la neexee ci ki nga xam ne yaa ngi ko koy def saa yoo toogee tudd faama ne faama de moom nangam ci ginnaawam donte dëgg la yaa ngi koy wax te yëguloo ci dara ñi ngi jël yow say bàkkaar ñi ngi jël say tuyaaba di ko versé ci fi nga xam ne mooy compte faama yow ñuy jël li nga xam ne moom mooy sa yiw ay bàkkaaram moom dañ la koy jox yow yow sa yiw ñu jël ko di la ko jox mais yàlla nee na daal képp koo xam ne def nga bàkkaar delsi ci yàlla xam ne yàlla moo mën a jéggale bàkkaar yi mu ne di nga fekk yàlla mu nekk toog di la xaar pour accueillir la pour jéggal la benn waaye day def bàkkaar di def bàkkaar tam mu fekkoon mu nekkoon nit nitu yàlla def bàkkaar di def bàkkaar di def bàkkaar ba jékki-jékki rek jaaxle lu tolloog 40 ans jubluwul ci boroomam mu jékki-jékki rek conscience am daal di koy yedd mu tëdd ba guddi dégg lu koy wax naan dang ñoo wanoon ginnaaw ñeen fukk faale wooñu toppatoo wooñu xoolatooñu yaa ngi nekkoon ci li la neex mais tey bi nga ñëwaatee dinañ la jéggal bàkkaaru ñeen fukk yooyu ba pare nag ful ko def ko mu nekk ay yiw kan moo mën a jéggale bàkkaar ku dul yàlla yàlla rek moo man nga tooñ ko ne ko baal ma mu baal la léeg-léeg nga tooñ nit ne ko baal ma mu ne la baal naa la ba pare te yeggul ci xolam wala mu naan lim ma def saa yu ma ko gisee dama koy gis ci kanamam kon bool kon baaloo ko man gëw ma ne nit daf lay tooñ nga ni baal naa ko ba pare mais nag mënuma koo xool ndax su ma ko xoolee rek day mel ni lim ma defoon tey la ma ko def kenn du yàlla yàlla ngay tooñ mu lay jéggal ba pare nag tooñ ya mu soppi ko def ko mu nekk ay yiw moo tax tuub dellu ci yàlla dina indi sababu yàlla jéggal la say bàkkaar ba pare nag def ko tabdiil min as-sayyi'aat ila al-xasanaat yàlla nee na walazina laa yad'uuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna an-nafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun wa man yafal zalika yalqa asaama nee na yudaafu lahu al-azaabu yawma al-qiyaamati wa yaxludu fiihi muhaana lu dul nag adatu adatu istina dafay ñëw illa man taaba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim xasanat wa kana allahu gafuran rahima kan moo mën lii ku dul yàlla am na koo xam ne nee na baax na lool mais dafa rànkiñe loo ko def du ko fàtte man mënumaa comprendre jullit bu rànkiñe waaye waaye jullit day jéggale ndey faana jullit day jéllale jullit dangay am esprit de dépassement nit daf lay def lu na weng ci pénc nga mën a fayu xalaat ne def nga bàkkaar boo xam ne sa digganteeg sa boroom bu la ci toppoon dootoo nooy nga ne kon naa ko bàyyi jéggal naa ko te yàlla tax mais dàq julli dàq woor te ku la def dara nga tëj ko ci sa xol dugaatal roq mën a kana yeesal sa tuub sa ngëm yàlla des na yàlla nee na ñu ngi wax ni li des li ñu des ci waxtu bi bariwul ah yéen yéen a doon wax bu conférence soppe yi ñëwee du ma def waxtaan moo tax tey ma waxtaan dëgg la émission des fois daf lay jàpp nga xool maam Fatou ni muy sonne xool waa ansaaru diin dugg ak génn lii bala mu koy taxawal day sonn woote réunion ku ñàkk ki ñaan mënoon na dem defi leneen waa ansaaru diin mënoon nañoo nekk ci leneen ñu woo la ne la kaay wax boo toogee des fois pour nga wax dafay jafe gor gu ne gor nga dadi yal na yàlla fay leen macha allah yàlla nee na ñi nga xam ne duñu utal yàlla moroom li bëri tey sunu jamono Sénégal waxtaan fi tawxiid sax boo ko defee am ay noon waykat bi daa way nooy moytoo say noon ku bëgg a am ay noon rek ku bëgg a am ay noon rek waxtaaneel tawxiid bu pire et dur wax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaël ku waxtaane tawxiid bu pire fii Sénégal am ay noon Oustaz El Hadji xanaa nag nga def rek nag mu mel ni sa mbubb mi ku ko dompet doo ko yëg ndax booy wax dëgg waroo cee ragal dara law mata laa in dëgg danga koy wax te dund waaye kuy wax di sóoraale li nekk ci poosu nit ñi booy wax di sóoraale xar kanam yi lay xool di ree pour nga wax lu normal dafay jafe damay wax ni waxkat yi am nañ part de responsabilité yu rëy nit duñ la tàntal ne la waxal ngay wax li neex nit ñi sooy wax dangay wax li neex borom bi subhanahu wa taala say wax pour mu egg ci kàttanu borom bi lay yeggee te dañoo yegg ci jamonoy joo xam ni li Alpha Diallo di wax naan ridal jamee gaayatun laa tudrak nit mënoo def lu neex ñëpp lu yàlla amul yonent bi amu ko kan moo ko mën a am kenn mënu koo am kon looy def seet si sa borom subhanahu wa taala ku nekk di nga tëdd wéetoog sa borom jël sa loxo ndeyjoor mii mu nekk sa njegenaay mun kar ak nakir ñëw laaj la ñu audité la kenn du la fa fekk kenn du la jëlal intervention kon lu ko fi jaar dërëm bi da nga koy lekk mu jeex sañse bi da nga koy sol mu raab oto bi da nga koy dawal kër gi da nga fay génn du yàgg kon lu ko fi jaar yàlla nee na ñi nga xam ni du ñu utal yàlla ndend yàlla kenn du ko utal moroom benn yàlla moo fi nekk mooy def mooy dindi mooy fale mooy folle xulillahuma malikal mulki tuutil mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tuzillu man tashaa'u bi yaddikal xayru innaka ala kulli shay'in qadir yàlla kese moo fi nekk yàlla nee na gaa ñi nga xam ne duñu utal yàlla moroom te duñu rey bakkan boo xam ne waruñu koo rey lu dul bakkan bi ñu war a rey tey ñu egg ci jamono boo xam ni reykat yi ñooy àtte reykat yi sàcc yu mag yi ñooy àtte yu ndaw yi egsi ci jamono boo xam ni waxkatu dëgg yi imaam yi lañuy jël di tëj bàyyi ñi nga xam ni chaque jour ñu wax ci pénc loo xam ni moo raw ka ñuy jiiñ ne terroriste la la mu def ñu toog di ko seetaan tey Sénégal boobu la ñu toll nee naa Sénégal damaa defi ni dañuy bëgg am problème jël sunu ay imaam di tëj jël ay nit ñu baax di taqal lii aw nit bañ ko defee yàlla daf leen a alak ñun nag yàlla daf ñoo ruse yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag kullu nafsin bi maa kasabat rahina ku nekk li nga bay rek loolu ngay góob yàlla moo mën a àtte alaysa allahu bi ahkamil xaakimin jàpp ay góor yàlla di leen tëj ndax dëgg ndax def say discours say waxtaan ñu jël ko teg seetaan xool na yow sa wax dafa ëpp li muy wax mooy di sensibiliser ndaw ñi di leen xirtal ci diine ñu ne terroriste nga te ñuy rey ay nit faalu seen bi faatu barki démb kan moo ko rey kan moo ko rey lu fan lay mujj fenn ñu jël ab imaam tëj ay jël ay imaam tëj ban Sénégal la ñu toll waaw dëgg la Oustaz El Hadji nee na bu fekkee naafeq dafa bëri ci am réew moo tax it dañuy bëri ay tolof tolof yàlla nañu yàlla dimbale. yàlla nee na ñi nga xam ne du ñu rey bakkan lu dul bakkan bi nga xam ne dañ ko reylu te du ñu njaaloo wala yaznuun te du ñu njaaloo wa may yafaal zalika yalqa asaama mu ne yii ku utal yàlla moroom di rey nit di rey nit ñi ci lu dul seen teeyu bakkan di rey nit ñi di leen àtte àttey rey léeg-léeg nga àtte nit àtte boo xam ne rey ko sax moo ko gën. magum jëm nga ne danga koy tëj 30 ans te mu dem ba nekk mag 30 ans te mënoon a jëriñ askanam mokkalal ay nit ñu bëri alquran yee ay nit ñu bëri orienté leen nga jël ko tëj def ni nag mun ngaa xeex diine yuriduuna li yutfiu nuurallaahi bi afwaahihim wallaahu mutimmu nuurihi walaw karihal kaafiruun dina kenn mënu koo fay dina ji taal bu yàlla taal sànni ci matt moo gën fay ko buur yàllaa ko taal te dootul fayati bu yeboo ñu jàpp imaam yépp tëj dëgg rek la ñuy wax insha allah te diine moo fi njëkk te moo fiy mujj yàlla jàngal nañu ko yonent bi wax nañu ko bada al islaamu gariban wa sa yahudu gariban kama badaa mais fa tuuba lil guraba islam bi muy commencé daatu mu ranke ñu jàpp saxaaba yi di rey ñii ñu jàpp di leen fiiriir comme ni ñuy fiiriiree jën yonent bi di xool jàpp waa kër yaasir lakk ba yonent bi ñaanal leen ñaan gu rëy googu sobran ala yaasir fa inna mawidakumul janna loolu la ñuy wax suñu imaam ndaw dañ koy wax ne ko muñal yàllaa ngi ñëw ak mbaax mbaaxam te yàlla nag am na ñu baax ñu fi nekk ñu mel ne ay maître ma soxna kan di ko défendre ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi koy défendre dëgg rek moom mooy mujj ñi nga xam ni reyuñu nit ñi nga xam ni utaluñu yàlla moroom li gën a métti utal yàlla moroom ak a métti utal yàlla keneen di jaamu keneen bàyyi yàlla mu ne ba pare nag te duñu njaaloo mu ne bu fekkee nag da ngay def lii nag am nga bàkkaar mu ne nag te bàkkaar bi day garaaw de yudaafu lahu alazaabu yowma alqiyamati wa yaxludu fiihi muhaana bu la yàlla dugalee safara da nga fay béel da nga fay nekk dootoo génn yàlla nag indi adaatu istina illa man taaba pour wan la ni tuub dafa am solo defal bàkkaar lu mu rëy rëy boo tuubee yàlla jéggal la yàlla nee na lu dul koo xam ne dafa tuub dellu ci yàlla réccu àtte bi mu àtte woon ci kaw nit te du dëgg àq bi mu jëloon ci kaw nit te du dëgg wax ju ñaaw ji mu waxoon nit te du dëgg yu bon yi mu defoon yépp mu réccu ko tuub ko yàlla nee na du ma yem ci jéggal ko rek dama koy jéggal ba pare bàkkaar yooyu ma defoon dama koy changer def ko mu nekk yiw ulaayika yubaddilu llahu sayyiaatihim xasanaat wa kaana allahu gafuran rahima hélas nee na waxtu bi dab nañu ñu ngi leen di jéggalu maam faatu ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla dëgëral la daldi fu ñu gis maam faatu gis la nga nekk ci wetam ak maa bëgg ñaan ñuy ànd te mu sincère ak maa fonk ñaan ñuy ànd te lañuy ànd mu nekk dëgg ci ñoom ak maa bëgg ñaan ñuy ànd te yàlla rek tax te loolu lañ gis ci yéen ñaar donte nag yow ñëpp nga uuf nag mbeng macha allah sama mag ju nuy naa la xadi mbay maa ngi lay yéegal sa yéeguwaay sama mag di nga xam ne palaa bu ma namm mu toggal ma ko macha allah ñu ngi lay ziar Fatima Cissé yal na yàlla fay leen yal na yàlla defal leen tawféex ku fi toog ma war la tudd waa ansaaru diin ñoom taala jum ñoom Pape Medoune ah ñoom ma yoro ah sama doom ji ma jàkkaar loolu macha allah yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yal na yàlla fay leen képp ku fi ñëw yal na yàlla jéggal la say bàkkaar gën laa jegale ak moom defal la tawféex aqulu qawli haza wastaghfirullaha li wa lakum salaamu aleykum waaye desoon na xadiis yi aay yi sax jeexagul di ma ñu bàyyi ba déwén kon oustaz Pape ba déwén insha allah bu la àdduna diggée ni da nga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax allahu akbar alhamdulillah